waaw gars yi mi ngi noonu quatrième combat bi ngeen am ci biir géew bi diggante doomu coxo ak l'enfant noir l'enfant noir moo leen won ginnaaw l'enfant noir l'enfant noir moo ñu won ginnaaw lamb maa mi ngi noonu ndeysaan quatrième combat bi ngi noonu arbitre waaye waaye sifflé diggante ci l'enfant ak doomu coxo doomu coxo moo ngeen di jàkkaarloo l'enfant noir moo leen wan ginnaaw quatrième combat baa ngi noonu ndeysaan arbitre bi sifflé na génn seen diggante quatrième combat bi doomu coxo ma ngi kabar ma ngi kabar di dox kawam ngi noonu bëri ci côté saako l'enfant noir quatrième combat quatrième combat mi ngi am noonu mi ngi noonu ndeysaan jàppante nañ doomu coxo jël na tànk bi attention doomu coxo attention attention ba léegi attention euh, waaw arbitre bi arbitre bi sifflé na arbitre bi arrêté na combat bi dina am arbitre bi arrêté na combat bi laata di am comme dañuy yaakaar naa dinañ bëre dañuy jëlaat ci biir géew bi ndax arbitre bi. waa ji sori àgg na ko fu sori àgg na ko fu sori ci saako yi du yàgg xaw ma yàgg moo tax. waaw bu ko yàggaatee waaw bu nekkoon ci géew bi la da ñàkk. waaye li ñu génn ci saako bi dafay yàgg tamit mi ngi noonu l'enfant noir ak doomu coxo. waaw mi ngi noonu l'enfant noir a ngi noonu desaan di wax ak kosum. di fomp loxo yi l'enfant noir doomu coxo waaw waaw waaw mi ngi noonu l'enfant noir yi ngi yëkkati loxo yi waaye jël na benn avertissement ndeysaan moom l'enfant noir ndax dafa génn saako yi arbitre bi sifflé waat na ginnal seen diggante ñaari ar mbëri ñu ngi noonu ndeysaan l'enfant noir mi ngi xeex ma ngay laaw laaw attention attention ba dóor bu daanu du am ba dóor bu daanu du am l'enfant noir ndeysaan jëlaat nañ tànk ba jëlaat nañ tànk bi waaye génnaat na si ndeysaan ñi ngi bëree kay ndeysaan ñaari xale yaa ngi bëree waaye ndeysaan doomu coxo doomu coxo l'enfant noir ndeysaan waaye xale yaa ngi bëre ndeysaan Lafa ñëwaat na Lafa dafa mën a bëre dafa mën a bëre mi ngi noonu ndeysaan jalaat na tànk bi ndeysaan doomu coxo ngay dóor non mën nañoo ñaari xale yi ay ndaanaan lañ Lafa mi ngi topp xeex bi waaye na def attention na def attention doomu coxo doomu coxo bu koy jëlaat waaye mi ngi noonu ndeysaan waaye xale yaa ngi bëre waay waay waaye bëri nañ bëri bi mu neex waay ndeysaan attention oh doomu coxo daan na ko ndeysaan oh doomu coxo bëri nañ combat bu métti ndeysaan ñaari xale yi bëri nañ combat bu métti combat bu métti lañ bëri ndeysaan ñaari xale yi oh combat bi ndeysaan jële bu amul benn werante diggante l'enfant noir ak doomu coxo ndeysaan quatrième combat bi nga doon am noonu ci biir géew di dox si diggante doomu coxo ak l'enfant noir ndeysaan mi ngi noonu. premier combat combat bi nag renvoyé renvoyé mu métti trop. ñu seere ka barki Serigne Touba. di bëgg gaa yëpp. waaw sama gaa yëpp. jox da nga kaa njëkk a yóbbu ba si seet saako yi da nga war a njëkk a yóbbu ba si seet saako yi mu rëcc ci arbitre bi ne la bëre waat nga nangoo bare yow da nga xamoon ne da nga koy. waaw dama liggéey. barki sëñ Touba. yow boo nee kër Papa Yade. dégg ah. man bu ma doonee mbër Papa Yade moo tax ma doon mbër. Oh, dem si yàlla si. waaw ma doomu ndey. gaa yi ñëpp a ngi fóon. mais wax gaa waa di woo gaa laaj. man eh booy di saf saflu booy laa ay Laurent booy di tontoflu li. waaye Laurent. dégg ma de lis naa ko na ñëw ah doo xool doomu di fis gi baa ngi riyool góor taxaw dëgër maa ngi ne bu ñëw fii ma ngay si xandel barki borom Tuuba di nuyu sama gaay ay Baye Nder ay ama neex xam nga ay njoogu gaay yëpp ay baabu kale sama gaay ay aswan dañ jàpp si combat bi Saliou ay moota ñoom ñëpp mami nabu xam école bi lépp. maar aw ma fayam ko sonn ci man. barke Serigne Touba. jëf waay maay booy. mais booy bi bàyyi leen ko ci xel. doomu Jaxaaw mi xool ko mat na mbër. mbër mu mat mbër la te te ngay nag dañoo yàgg a génne ay qualité. duñ génne como xoolal booy bi nee na papa yaata tax muy bëree.